sama doomu ndey laay wër Juan Branco gars yi wëral leen ma Juan Branco anam mi rëbësan ah. ana jubilateurs yi ñi leen jubilé di yuuxu naan jàpp nañ Juan jàpp nañ Juan ma leen ko xool Juan de du fa yàgg du fa yàq Juan du doomu baadoo la de <laughs> Juan Juan du doomu baadoo la laay lay la laa day bay du pasti Juan Juan du doomu baadoo la ak Sall di doomu baadoo daa mun a daa mun a Juan Juan di espagnol eh, eh, di français ah yor ay nationalité yu dëgër këcc Macky Sall pour mu crédible sax ba Amérique la demoon wuti ji fa kayit demoon fa baari ñinde fa la amee kayit dëkk jabaram dugal loterie Macky Sall day jabaram loterie nationale la dugal bu Fra bu Amérique pour am fa kayit woolu jëkkër ji jëkkër ji ñëw fa di yanu ay pneu di charger ay conteneur ba am fay kayit moom tamit ah day bay du passé nag xuwaan xuwaan yor rougeole passeport rougeole de variole rougeole passeport yooyu euh, kii baadoo la rougeole ak variole <laughs> passeport bu xonk boobu noonu rougeole yi <laughs> non xuwaan yor rougeole yor variole <laughs> biir bu tàññi biir bu daw e eh, waral leen ma xuwaan ana branco xuwaan branco doomu nday moola branco ñun de gars yi mënuluñ ñu dara Juan mënuluñ ko dara Juan Branco ak Mola Branco ñoo moom dañ leen di tëwoon ah, kon nuñ jàppee Juan ah Juan tàng na de Juan day Juan moo moom dañuy ñëw jàpp ko samedi dugal ko kaso dimanche dugal ko avion lundi Juan nag ak réew Juan naan leen non j'ai pas du ma nee na business class ma ne Juan yaa réew Juan de business class la mujjee dugg nee na du ma dugg géttu bay Juan Juan Royal Air Maroc la ñëwee kurti kurti ba dugg ci biir Juan bu muy génn ne leen du ma dugg Air Sénégal Air France laay dugg tat noomu doomu baadoo la baaxut doomu baadoo la Juan Juan mooy Juan Branco mooy bandi nee na leen non business class euh, euh, Air France non non non non non non je prends pas Air Sénégal c'est la merde Air Sénégal c'est la merde Air France ba gars yi wutal ko Air France business class xawaan tegalee tànkam gars yi indil ko jus yi muy naan chiet ah, tët tët di wokk bopp bi ma doon xawaan yaa baax ndey yaa baax bàyyi chiet ah, tët ay waaye xawaan Branco waaye dem na waaye ay waaye xawaan Branco toj na réew mu génn dem yoonam ay waaye xawaan <laughs> non xawaan du mba xawaan ay bandi gars yi naan ay mandataire international xawaan ñëw ci dëkk bu dugg ne leen maa ngi nii bett ñëpp conférence de presse toog yëngal bopp bi toj foofu menacé <laughs> xaw nekk ci biir temps bi di taxawaalu buum buum xaw nekk fii jël gaal romb. <laughs> romb leen ba egg Rosso Mauritanie ñu doog ko jàpp xawaan génn xoola ñuy yuuxu jibile kii ñëw lu tëdd si euh, Antoine ñàkk jom ñëw toog ba assemblée nationale naan on a attrapé xawaan waa bip ñoo ko jàpp rek waa dëkk bi di tàccu kàcce kàcce kàcce di tàccu deux minutes <laughs> ma ne leen dañ ngeen dee doomu gaynde la <laughs> du doomu bukki doomu gaynde la da nga delloo doomu gaynde doo ko lekk doo ko warax doo ko won ne da nga koy delloo ndeyam yii moo tax man leen du fa yàgg du fa yàq doomu gaynde ngeen jàpp signeel bu fekkoon doomu signeel la waaw ah, mun na fa yàgg bu fekkoon doomu kuttu mbaasaan la mun na fa yàgg mais kii doomu gaynde la dellool dellool dellool kii kay doomu gaynde ku ko àbb delloo ko moo taxit Macky delloo leen doomu gaynde ga la lendemain waan moo bon walla féroce bàyyi leen sànni leen seen passeport yooyu te ngeen dem wuti passeport international yi billahi tant que yéen a ngi yore seen ruusal yooyu seen variol yooyu dinañ leen faray dinañ leen faray de yooyu passeport yooyu man de gën gëj naa cee xool man gëj naa yal na ma yàlla muccal te musal ma ci passeport variole ak rougeole Antoine mu doon duul toog assemblée nationale jàpp nañ waan moo mu doon bu ndaw bi moo toog di fooye Antoine quoi non Antoine moo Antoine assemblée nationale non man na man jambar la nak man gars dañ ma jox cër boy bu ndaw bi nokk fi ba Canada di yëngal assemblée nationale Boy, Antoine ñak jom tok assemblée nationale di ma tontu barki 17 millions de sénégalais man la Antoine ñak jom tontu no vraiment nak boy man war war ngeen ma sumil sàpp duma nit ma ñew portable bi gis ni dañ doon jema ray Serigne Cheikh salou wax ci Serigne Cheikh salou ak nuko Antoine bëggoon def Antoine ñëw assemblée nationale bu bu ko woon ñëpp ni Serigne Cheikh Saliou sëriñam la gaañinam la waaye loolu pour tontu man ndeysaan Serigne Cheikh Saliou sax doomam euh, mus nañ toog ci euh, euh, tëm di waxtaan moom Serigne Cheikh Saliou doomam mun naan ma Antoine lu tax mënoo wone sa mbëggeel ak nu la Serigne Saliou doon def waaye bu ko moon wax si man sax waaye dinaa wax quoi parce que xam naa ne Mollah Morgun wax naag man bëgg maa jaxase donc foog ma wuyu ko mooy buy wax waxu Café Touba naan Serigne Cheikh Saliou doomam. dañ doon waxtaan mu ne ma Antoine des fois da ngay wane da war a di wan wan Sénégalais yi ah, ah, fi nga toll Serigne Cheikh Saliou ah, fi nga tolloon Serigne Saliou ba doomu Serigne Cheikh Saliou fekk xoolam man maa leen wax portable ba Serigne Cheikh Saliou empoisonnement ba mu bugg a tontu nag bugg a won ma bugg a won tóoni bugg ma won ni moo laa man Serigne Cheikh Saliou xam naa ko xam naa doomam ay gaañ lañ yooyu muy doon wax yooyu kenn santu ko ko kenn santu ko ko woon mënoon na ñàkk mais loolu yëpp la doon tontu 17 millions de Sénégalais man la ñuy tontu yabuñu ma nag. dégg dégg lu ma leen di wax joxoon naa leen exemple boobu nee naa leen billaay man ku ma la ma yàpp ku ma xamul mais sama rëkk rëkk rëng samay rëkk gaa yabu ñu ma dee autorités yi ñuy wax ne ay kilifa lañ ku ci gis ku ma ci gis day ku ma ci gis day sotu ba yabu ma parce que alxuraan seen bàyyi laa boo demee ci ñoom sax ne leen moolaa sama gars la dañ lay xoolaate bët ah da nga xam moolaa sérieusement da nga xam moolaa ñu ñu dem ji Antoine ci boppam ki ma xam dem ci moom nekku ko moolaa sama booy la ñetti yoon Antoine laaj na ko ah boo da nga xam Mollah man man Mollah dafa may saaga rek man Mollah Mollah dafa may saaga rek man daf ma ko def da nga xam Mollah di ko xulli bët <laughs> gëmeewu ko sax <laughs> sama grand bi ne ma booy yow eh, traumatisé nga ñii de ma ne ko ah mën a billaahi keroog maa ngi wax Antoine naan ko sama booy nga laajte na ma ko ñetti yoon ah da nga xam Mollah ah bon non mais da nga xam Mollah kon <laughs> bare ko doon dànk rek dànk rek grand bi ne ko sama booy la maa ko yar ah bon mais man damay saaga rek. lu ne la may wax <laughs> grand bi di ma wax ne booy bàyyil bàyyil Antoine waaye keroog maa ngay wax say wax muy xulli bëri gars yi gëmeewu ko sax na ko sama booy ga <laughs> gars yi dama leen doon rek <laughs> sonal naa ne Antoine toog ba assemblée nationale di ma tontu non man nag ba am naa valeur nag réew mii ponkal laa ci nag billaay wallaay loolu yàllaa ko def réew mii ponkal laa ci xaw ma ku ñu yàpp mais man bokk <laughs> bokk ma ci gisoo dañuy toog ci ay palaato bu ko wax Mollah Morgun mënuñu wax Mollah Morgun ñuy wiiri <laughs> kon Seneweb bu ñu toogee ci plateau yi ndax gis nañ portable am na photo bu gis gis nañ portable am na ku ko génne ndax est-ce que moom la ah am na ko génne man mii maa fi génne photo portable bi <laughs> mais wax sama tur plateau bi fees dal ki dul naa liste kenn di xool sa morom naat ah ku fi waxtu ram dee de dafa dof de da de day wër say juróom-ñaari maam say toj-toju maam lépp fu ñu tojoon daf fay jaar dafa dof de détecteur la détecteur privé la day day loqati say say sila bu nday lay génne say stringu nday say belefete bàyyi lay génne laa la wax di ko fóot ci digg ci digg askan wi moytu leen ko de moo tax bu ñuy wax ñi mu wax moo laa de ku nekk di xool sa morom naa wuy en euh, ko am na ko ko génne daal am na ko ko <laughs> kan moo ko génne ku dul man <laughs> rek waaju na ko non kon nañ rek ma dajee ko def yaa yooy oy sama man moo man xaw ma lan laa nu ma cikkilee nu ma tuuti tuuti man maa man comme tuuti galaxtaan la man fu ne kon comme melentaan mais nag mattu melentaan laa <laughs> boo duggee ci man sa stringu ndey laay loqati laa la wax damay daj buntu kër seen biir kër dugg ci biir génn sa stringu nday ak sa bele fete baay xoolal indi saabu saabu saabu kii bërngal yii foot ko ba mu set wecc wecc weer ko ku rombu ma ne la kii de stringu ndayu Antoine la ya, ah waaw kay gis ni numu day bele fete ki de caaya bayam la mi ni nii <laughs> maa ko doon fóot mu fess del sumbu bu ko mo ra tax ñu ma day mo ra Antoine tok ba assemblée nationale di tonton teeg man bugg maa ne mo la man seigne Cheikh sallu sama sëriñ la domam sama xarit la hmm, man kuma ma oh, billahi dama la sori fu ma dama la sori yenn dof yi naa non moo la yaa ne woon yaa ne xuwaan eh, eh, dugg na bato man man kay benn waaye wax na ma ko tey benn soxna ma ne ko waa léegi man moo laa samay wax ay duuli muus la wax dama leen woon xuwaan du taxaw du fa yàgg yàq am na wala amul non da dugg na ci bato ma ne yéen a mën a duul dama ne probablement normalement xuwaan ci heure bi war na ko fekk ci bato yéen bu may wax loolu kenn xamul ni xuwaan ci ndox mi la jaar <laughs> kon kay man léegi nan laa def defa xam ni xuwaan ci ndox mi la jaar bu may def live kenn xamul fu woon ma ne leen Juan romb na frontière Sénégal rëcc na Sénégal Juan normalement probablement si tout ça passe bien nii laa ko waxee probablement normalement si tout ça passe bien Juan mu ngi ci bato bi te oto bi mi ngi ko doon xaar Rosso man bu ma xam kan moo ko fi xam <laughs> sama kan Sénégal moo xamoon ni Juan rëcc na frontière Sénégal man bu may wax lool kan moo ko fi xamoon boobu wax naa ko man ne Juan rëcc na frontière Sénégal Sénégal jàppatuñ ko. Rosso Mauritanie am oto bu ko fay xaar mu waroon dem mooy mooy euh, Mercedes yooyu Mercedes yàgg ya moo ko fa waroon xaar mu yóbbu ko ba euh, Rosso kii yi lu mu tudd si dibu Nouadhibou Nouadhibou foo la ko bateau bi doon xaar foofu la waroon dem loolu yëpp ñun ñoo ko planifié noonu nu ma ko xamee nu ma ko xamee. <laughs> loolu danaa laa wax ne leen probablement barke alxuraan moo tax gel bu ma bu ma bëggoon weddi ma ne ko demal léegi live bi boo fa fekkul probablement normalement si tout ça passe bien boo ko fekkul ñëwal ma jox la 1000 dollars 1000 dollars sénégalais yi seede mu dem loqati dem déglu yëpp ñëw ne ma wuy wax nga dëgg kay probablement wax nga ko kay dégg naa probablement dégg naa si tout ça passe bien man leen man sa waay man caaxaanuma info bu ma la jox yóbbul bu ma la jox demal nga werante ko assemblée nationale barke alxuraan doomu aadama du ko dindi. jo man du ma caaxaane information dëgg bi dama fee am gëdd de valeur la fi am xuwaan du ku nek lay waxal boy xuwaan du ku nek lay waxal avocat international man day jokkoog man yorna naa numéro di waxtaan ak mom muy waxtaan ak man bu buggee ay complément de dossier ne mola moolaa dama soxla tel ma dem def sama enquête ñëw ne ko li la <laughs> man xuwaan il m'aime bien je l'aime je le respecte il me respecte voilà bu mu au Sénégal bu mu Sénégal Vous mu daj xam il est incontournable dans ce combat incontournable moo mu ñëw man moom wax ma contacté Je contacté pour des compléments de dossier mu ci Vous mu ma mon Instagram contacter. ma ñëw contacté pour ma numéro may wax ak pour WhatsApp ay best gayen lañ best gayen best gayen <laughs> moo pour am benn doomu ponkal bu pour ci réew mi autorité bu ko dem France mu tiit parce que Juan comme defee leen yóbbu ces pays booy bi bëgg a dem France quoi ñemewul ragal ñu jàpp ko foofu rek benn copain am woo ma quoi moo la waaye dama bëgg sama copain bi dafa dem France quoi mi ngi euh, kii passeport diplomatique mais dafa ragal quoi Juan indil ko problème quoi xam nga mais jàppale ko gaañ nga ne ko Juan boolewu ko ci affaire yi ma ne ko ah yooyu jàppale ko parce que bugg na dem mais ñemewul ko day ragal ñu jàpp ko foofu noonu quoi cour pénal international rek ma reetaan man ne ah, Wagraw, graw drak wax loolu yoni ma numéro ma ne ko boole wu ko ci ci plainte bi may bandi de vrai bandi laa man maa xasaw ak la ki wër bandi seru, nang ma japp dama xaje dama xaje dama xaje yu ko xaj rek la dama xaje dama mun yëfu bandi dama ca dama ca yàgg nag dama ca yàgg nag damay suruxal dama lay suruxal bukki dama lay gasal pax rek bëma këŋ nga <laughs> naa saa sama jikko ji nu ma bonee nu <laughs> dama xel mi moo baaxul xel bu sadik laa yor xel bu sadik bum moo tax déggul ma foofu laa koy tëjee man ku ma yàpp rek dama laa sori mais <laughs> moo ñappe sa maam boo ma yabee sax dama laaj ma sa baay billaay wala nga laaj ma sa yaay ne maman mu ne wala nga papa man de moo laa laay fekk ci Instagram muy def laay ma koy yab danaan lii ay waay yow yow yow da nga ñoo yab yow xanaa da nga bëgg moo laa génn sa nan laa doxaanee nan laa doxaanee sa sa yaay xanaa da nga bëgg moo laa wax la su sama premier jour de rapport sexuel bu ma def ak sa yaay ba jur la yii bu ma dugal ci problème génnal ci kooku génnal ci kooku dafa dem day dugg ci day dugg ba sa sa sa rondalu nday génn léegi laay lay la xanaa dangaa bëgg moo laa wax nan laa doxaanee sa ndey ba ba ba biiral ko da da koy génne de dara ump ko mun na ko loqati ba génn ko ban koñ laa biiralee sa yaay ba jur la boo <laughs> tax booy bu ma yab rek na ma laaj baayam wala laaj ma yaayam léegi bàyyam danaan ko génneel ci kooku raxasul ba set wecc léegi mu wax la sa nan laa tëddee sa ndey <laughs> ak soxor moo tax ma def tekk ma ne ko ne ma yab moo tax ma joxoon ma joxoon leen boobu noonu mooy ban gaynde bu mu tëddee ne di nalaw quoi doomu bukki yor ba rek comme di fooyee ci xuuru gaynde <laughs> di nàmp xuuru gaynde fekk euh, bukki yaay ji da doon nalaw gaynde tëdde nee di nalaw doom ji di yor di yor ba ñëw ci xuur gaynde gaynde tëdd njaax muy fooye xuur yi di nàmp xuur yi ii mais yaayu bukki dafa yeewu rek doom ji dafa xool ne wuy sama ndeyooy yaay yow kii rek kërëb xëm <laughs> xëm gaynde ne bëri yeewu xool doomu bukki <laughs> yow yaa ma ñi def lii de yow sa ndey boo ko tàggoon doo ñëw di fooyee samay xuur <laughs> yow sa ndey boo ko tàggoon doo xooyee doo fooyee samay xuur doom ji ne wërit daw dem ci yaay fekk yaay xam na bukki doomu bukki yaayu bukki xam xam mu ñëw di xam na bu yàgg yaay ja mu xippee bët yi ci nalaw la yeewu xool gis doomu doomam ja di nàmp xuur gaynde ci la xamee bukki bu yebee gaynde <laughs> da fekk gaynde di nalaw de wala bu yebee gaynde rek ndey ji du ko yeb bàyyi ji du ko yeb xanaa doom man de noonu laa mel ak gone yi toog ne nii rek njaax ñu ñëw di xoo mel ni kay dañuy fooyee samay xuur may may ree na <laughs> ki la Pate Ndiaye bu ñëw ubbi compte fekk baayam nga xam ni yabuma mu ñëw di foo fekk may kii muy waaye waaye doolu waaye d'accord kii xamuma de na ma dem laaj baayam ma laajoon baayam wala ndeyam bul fekk kii di laaj nga fay dugg bul fa wax génnal ci moom àdduna ak alaaxira boo bëggee léegi mu wax la nan lañ la juree yow yii moom day wax ci doomu xaraam yi kan moo xamoon ni Antoine Diome baayam daa biiral yaayam moo laa ko wax di ci la ko ñëpp xamee moo ko jox tur boobu Antoine ñàkk Diome hmm? kan moo xamoon ni nijaayi Antoine Diome mooy bu góor jigéen bu gënoon mag ci góor jigéen yi ci Afrique te moom moo ko nàmpal jox ko mu lekk mu naan ku ko xam <laughs> doon kan moo xam hmm? ah mère ñaa <laughs> kuy wax kuy wax euh, opération rëbb dëbb ba génne ndeyu Antoine ak fu ko bàyyi biirale maa ngi ñoo dem sama yoon man <laughs> Antoine daf maa ragal nag te moom xam rek temps il faut ma may ko dara gars yi pëggee noonu laa jàppaleel Antoine yow da nga sonal Antoine mën a duul nag moo tax ma sonal ko mais sinon man du kii Antoine dafa mën a fen dafa mën a fen Antoine day fen di fen Ismaïla Madior moom dafa ak bëdi muy xipp xipp moom day duul di xepp clignotant moom mooy ismaila ma yor clignotant bu buy fen ni la def bëdi pa boobu du fu ñàkk jom du duulaan ni bëdi clignotant <laughs> ak mo na fen mais ñooñu ma ngi ñëw eh, sama live ubbeeku na facebook bi ubbeeku na léegi retour bi bi mooy dernier live bi fii en attendant dañuy dal facebook ah kon gars yi dama leen doon jaaree di leen ziar di leen nuyu di leen sant di leen di leen wax ni ay jambar ngeen wéttali ngeen ma bu ñu ma tëjee facebook vraiment yéen laa ngeen may suivre kontaan na ci yeen li ngeen def rafet na buñ ma bolaka waté rek ma ñew buñ ma bolaka waté mais xam nga yëfu baadoo la yooyu ngeen baal ma nak nag yooyu ba do la de ñu tej ma fële ma ñew nek ak yeen ngeen commencé am sympathie bi di bëggante ak man wa yéen ma bëgg wala ma leen bëgg ay bëggante la wa ko bi nañ ma Facebook ma ngi delluwaat wa fas yéene nak tak seen nangam taanu nday ñom ñep ñom ñoom <laughs> ñoom politiciens yi wa voilà ismaël major ki la ñu temps waa kële Antoine Café Touba <laughs> Antoine kafe Touba ak ak ak ak Macky biiru Sall tey rek ma tey rek laay toj tey rek laay namp seen ngi sama gak kon nañ Facebook mula Morgun mula mur Facebook toro jëm mula aja, téeméeri yàmb ci jaay raja waaw portable bi nag benn histoire rek laa ci wax Antoine génn dem ba assemblée nationale di tonton teg man ay waay bu ma waxee la maa ngi dem jaaw ñu foofu incha allah béggee béggee sama gars yi oh peace and I'm yaaw may leen ma tuuti nag maa ngi ci gis nga maa ngi ci toilette bi laa nekk nii ci toilette di laa nekk nii de dama dëgër fit nag live ci biir toilette di nag <laughs> di sànni samay bomb atomique nucléaire bomb bum basoka ci suuf moom du ma leen ko woon parce que fu ne ci suuf moom oh, xanaa ma jox leen tànk yi rek tànk yi tànk yi baa bi ñu tànk yaa ngi noonu tànk yi yi ak tubay yi ak tubay tubay yaa tànk yi jël leen tànk yi xale yi laa yóbbu seen kër maam xale yi laa yóbbu seen kër maam kon ñu def noonu ca One Love ma ma continuer samay concentration parce que xale yi fi ne ñoom laa yóbbu seen kër maam waaw merci beaucoup maa ngi enjoy <laughs> maa sadik maa criminel conférence de presse toog yëngal bopp bi toj foofu menacé xaw nekk ci biir temps bi di taxawaalu vum vum xaw nekk fii jël gaal romb romb leen ba egg Rosso Mauritanie ñu doog ko jàpp xawaan génn xoola ñu yuuxu jubilee kii ñëw lu lu tëdd euh, Antoine ñàkk jom ñëw toog ba assemblée nationale on a attrapé xawaan. waa bip ñoo ko jàpp rek waa dëkk bi di tàccu kàcce kàcce kàcce di tàccu deux minutes <laughs> ma ne leen dee de ki ngeen jàpp doomu gaynde la <laughs> du doomu bukki doomu gaynde la da delloo doomu gaynde doo ko lekk doo ko warax doo ko won ne da nga koy delloo ndeyam yii moo tax man leen du fa yàgg du fa yàq doomu gaynde ngeen jàpp signeel bu fekkoon doomu signeel la waaw ah, mun na fa yàgg bu fekkoon doomu kuttu mbaasaan la mun na fa yàgg mais ki doomu gaynde la dellool dellool dellool kii kay doomu gaynde ku ko àbb delloo ko moo taxit Macky delloo leen doomu gaynde ga la lendemain Juan moo bon Juan la féroce bàyyi leen sànni leen seen passeport yooyu te ngeen dem wuti passeport international yi billahi tant que yéen a ngi yore seen ruusal yooyu seen variol yooyu dinañ leen faray dinañ leen faray de yooyu passeport yooyu man de gën gëj naa cee xool man gëj naa yal na ma yàlla muccal te musal ma ci passeport variole ak rougeole <laughs> Antoine mu doon duul toog assemblée nationale jàpp nañ waa bépp jàpp moo mu doon bu ndaw bi moo toog di fooye euh, Antoine quoi non Antoine moo Antoine assemblée nationale non man nag man jambar la nak man gaay dañ ma jox cër boy bu ndaw bi nëkk fi ba Canada di yëngal assemblée nationale Boy, Antoine ñak jom tok assemblée nationale di ma tontu barki 17 millions de sénégalais man la Antoine ñak jom tontu no vraiment nak boy man war war ngeen ma sumil sap du ma nit ma ñew portable bi gis ni dañ doon jema ray Serigne Cheikh salou wax ci Serigne Cheikh salou ak nu Antoine bëggoon def Antoine ñëw assemblée nationale bu bëgg woon ñëpp ni Serigne Cheikh Saliou sëriñam la gaañinam la waaye loolu pour tontu ma ndeysaan Serigne Cheikh Saliou sax doomam euh, mus nañ toog ci euh, euh, tëm di waxtaan moom Serigne Cheikh Saliou doomam mu naan ma Antoine lu tax mënoo wone sa mbëggeel ak nu la Serigne Saliou doon def waaye bëggu ma woon wax si man sax waaye dinaa wax quoi parce que xam naa ne Mollah Morgun wax naag man bëggu maa jaxase donc foog ma wuyu ko mooy buy wax waxu Café Touba naan Serigne Cheikh Saliou doomam. dañ doon waxtaan mu ne ma Antoine des fois da ngay wane da nga war a di wan wan Sénégalais yi ah, ah, fi nga toll Serigne Cheikh Saliou ah, fi nga tolloon Serigne Saliou ba doomu Serigne Cheikh Saliou fekk xoolal man maa leen wax portable ba Serigne Cheikh Saliou empoisonnement ba mu bu ko tontu nag bu ko won ma bu ko won tóoni bu ni moo laa man Serigne Cheikh Saliou xam naa ko xam naa doomam ay gaayen lañ yooyu muy doon wax yooyu kenn santu ko ko kenn santu ko ko woon munoon na ñàkk mais loolu yëpp doon tontu 17 millions de Sénégalais la ñuy tontu yabuñu ma nag. dégg dégg lu ma leen di wax joxoon naa leen exemple boobu nee naa leen billaay man ku ma xamul la ma yàpp ku ma xamul mais sama rëkk rëkk rëng samay rëkk gaa yàbu ñu ma dee autorités yi ñuy wax ne ay kilifa lañ ku ci gis ku ma ci gis day ku ma ci gis day sotu ba yàbu ñu ma barke alxuraan seen bàyyi laa boo demee ci ñoom sax ne leen moolaa sama gaañ la dañ lay xoolaate bët ah da nga xam moolaa sérieusement da xam xam moolaa ñu ñu dem ji Antoine ci boppam ki ma xam dem ci moom ne ko moolaa sama booy la ñetti yoon Antoine laaj na ko ah boo da nga xam Mollah man man Mollah daf may saaga rek man daf may saaga rek man daf ma ko def da nga xam Mollah ko xulli <laughs> ko sax <laughs> sama grand bi ne ma booy yow eh, traumatisé nga ma ne ko ah mën wax Antoine naan ko sama booy nga laajte ñetti yoon ah da nga xam Mollah ah, <laughs> rek bi na ko sama ah, man daf may saaga rek. lu ne la may wax grand bi di ma wax nag booy bàyyil bàyyil Antoine waaye keroog maa ngay wax say wax muy xulli bëri gars yi gëmewu ko sax na ko sama booy ga gars yi dama leen di rek sondal naa ne Antoine toog ba assemblée nationale di ma tontu non man nag ba am naa valeur nag réew mii ponkal laa ci nag billaay wallaay loolu yàllaa ko def réew mii ponkal laa ci de. xawma ku ñu yàpp mais man bokk <laughs> bokk ma ci gisoo dañuy tok ci ay plateau bu ko wax Mollah Morgun mënuñu wax mola morgan ñi wiri <laughs> kon Seneweb buñ toge ci plateau yi na gis nañ portable amna na photo buñ gis gis nañ portable amna ku ko genn na est-ce que moom la amna ah, am na ko génne de man mi ma fi genn photo portable bi <laughs> me ñi muñ wax sama tur plateau bi fees dal ki dul naa liste kenn di xol sama rom nat ah ku fi waxtu ram dere dafa dofte dalay da de <laughs> day wër say juróom-ñaari maam say toj-toju maam lépp fu ñu tojoon daf fay jaar dafa dof de détecteur la détecteur privé la day day loqati say say sile bu nday lay génne say stringu nday say belefete bàyyi lay génne laa la wax di ko fóot ci digg ci digg askan wi moytu leen ko def moo tax bu ñuy wax ñi muy wax moo laa de ku nekk di xool sa morom naa wuy euh, en tout am na ko ko génne laal am na ko <laughs> kan moo ko ci génne ko doon man <laughs> rek waa na ko non kon nañ bàyyi rek ma dajee ko def yaay yooy oy oy oy yooy man moo laa man xaw ma lan laa nu ma cikkilee nu ma tuuti tuuti man maa man comme tuuti galaxtaan la man fu ne kon melentaan comme melentaan mais rek mattu melentaan laa yoo <laughs> man boo duggee ci man sa stringu nday laay loqati laa la wax damay daj ji seen buntu kër seen biir kër dugg ci biir génn sa stringu nday ak sa bele fete baay xoolal indi saabu saabu saabu kii bërngal yii fóot ko ba mu set wecc wecc weer ko ku romb ma ne la kii de sringu ndeyu Antoine la ah waaw kay gis nga nu mu day bele kii de caaya baayam la mi ngi nii <laughs> maa ko doon fóot mu fees del sumb bu ñuul ko <laughs> moo tax yabuñu ma tey moo tax Antoine toog ba assemblée nationale di tonton teeg man bugg maa ne moo laa man sëñ Cheikh Sall sama sëriñ la doomam sama xarit la hmm, man ku ma yab waaw dama laa sori ku ma yab dama laa sori yenn dof yi naa non moo la yaa ne woon yaa ne woon xuwaan eh, eh, dugg na bato man man kay ne benn waaye wax na ma ko tey benn soxna ma ne ko waa léegi man moo laa samay wax ay duuli muus la wax dama leen woon xuwaan du taxaw du yàgg du yàq am na wala amul non da dugg na ci bato ma la yéen a mën duul dama ne probablement normalement xuwaan ci heure bi war na ko fekk ci bato yéen bu may wax loolu kenn xamul ni xuwaan ci ndox mi la jaar <laughs> kon kay man léegi nan laa def xam ni xuwaan ci ndox mi la jaar bu may def live kenn xamul fu ko ma ne leen Juan romb na frontière u Sénégal rëcc na Sénégal Juan normalement probablement si tout ça passe bien nii laa ko waxee probablement normalement si tout ça passe bien Juan mu ngi ci bato bi te oto bi mi ko doon xaar Rosso Mauritanie man bu ma xam loolu kan moo ko fi xam <laughs> sama gaay kan Sénégal moo xamoon ni Juan rëcc na frontière u Sénégal man bu may wax loolu kan moo ko fi xamoon boobu wax naa ko man ne Juan rëcc na frontière u Sénégal jàppatuñ ko

dollars mille dollars sénégalais yi seede mu dem loqati dem déglu yëpp ñoo ne ma wuy wax nga dëgg kay probablement wax nga ko kay dégg naa probablement dégg naa si tout ça passe bien man leen man sa waay man caaxaanuma info bu ma la jox yóbbu bu ma la jox demal nga werante ko assemblée nationale barke alxuraan doomu aadama du ko dindi. yow man du ma caaxaane information dëgg bi dama fee am gëdd de valeur laa fi am xuwaan du ku nekk lay waxal booy xuwaan du ku nekk lay waxal. avocat international man day jokkoog man yorna naa numérom di waxtaan ak mom muy waxtaan ak man bu bëggé ay complément de dossier né ma moolaa dama soxla tel ma dem def sama enquête ñëw ne ko li la <laughs> man Juan il m'aime bien je l'aime je le respecte il me respecte voilà bu mu ñëwé Sénégal bu mu xolé Sénégal ba mu daj xam na ni ki il est incontournable dans ce combat incontournable motax mu ñëw man moom wax naa yàgg ko wax Juan moma contacter contacté on ma contacté pour des compléments de dossier mu ci laa nekk gaañinam mu yónnee ma sama Instagram la ma ñëw contacté yónnee ma numéro may wax ak mom légui WhatsApp ay best gaañin lañ best gaañin best gaañin <laughs> moo am ben doomu ponkal bu nek ci réew mi autorité bu ko dem France mu tit parce que Juan comme dafa leen yóbbu ces pays Boy, bi bu dem France quoi ñimewul ragal ñu jàpp ko fofu rek ben copain am ma ko mola. koy dama bugg sama copain bi dafa bëgg a dem France quoi mi ngi euh, kii passeport diplomatique mais dafa ragal ko xuwaan indil ko problème quoi xam nga mais jàppale ko gaañ nga ne ko xuwaan boolewu ko ci affaire yi ma ne ko ah jàppale ko parce que bëgg na dem mais ñi ko wul day ragal ñu jàpp ko foofu noonu quoi cour pénal international rek ma reetaan ma ne ah waa grave dinaa ko wax loolu yónni ma numéro ma ne ko xuwaan boolewu ko ci ci plainte bi <laughs> may bandi <laughs> maa xasaw ak rasulaa kuy wër bandi cerveau nag ma jàpp dama xaje dama xaje dama xaje yëfu xaj rek laay dama xaje dama mun yëfu bandi dama ca ma ca yàgg nag dama ca yàgg nag damay suruxal dama lay suruxal comme bukki dama lay gasal pax rek bëma këng waaw naa saa sama jikko ji nu ma bu sadik laa yor xel bu laa koy tëjee ma yab rek dama laa sori mais bu <laughs> ma yabee sax dama laaj ma sa baay billaay wala nga laaj ma eh, eh, mama mu ne wala nga papa man ne moo laa laay fekk ci Instagram muy def live ma koy yab danaa li ay waay yow yow yow yow danga ñoo yab yow xanaa da bëggu moo Mollah génn sa nan laa doxaanee nan laa doxaanee sa sa yaay xanaa da bëggu bëgg Mollah wax la su sama premier jour de rapport sexuel bu ma def ak sa yaay ba jur la yii bul ma dugal ci problème génnal ci kooku génnal ci kooku dafa dëmme day dugg ci day dugg ba sa sa sa rondalu ndey génn léegi laay la xanaa da bëggu moo laa wax nan laa doxaanee sa ndey ba ba ba biiral ko da da koy génne de. dara ump ko mun na ko loq ci ba génn ko ban koñ laa biiralee sa yaay ba jur la <laughs> booy bu may yab rek na ma laaj baayam wala laaj ma yaayam léegi baayam danaan ko génneel ci kooku raxasul ba set wecc léegi mu wax la sa nan laa tëddee sa ndey <laughs> ak soxor <laughs> moo tax ma def tekk ma ne ko ne may yab moo tax ma joxoon ma joxoon leen boobu noonu mooy ban gaynde bu mu tëddee ne di nalaw quoi doomu bukki yor ba rek comme di fooyee ci xuuru gaynde di làmp xuuru gaynde <laughs> il fekk euh, bukki yaay ji da doon nalaw gaynde tëddee nee di nalaw doom ji di yor di yor ba ñëw ci xuuru gaynde gaynde tëdd njaax muy fooye xuur yi di nàmp xuur yi ii mais yaayu bukki dafa yeewu rek doom ji dafa yeewu rek xool ni wuy sama ndeyooy wuy yaay yow kii rek kërëb xëm <laughs> xëm gaynde ne bëri yeewu xool doomu bukki <laughs> yow yaa ma ñi def lii de Eh, yow sa ndey boo ko tàggoon doo ñëw di fooyee samay xuur <laughs> yow sa ndey boo ko tàggoon doo xooyee doo fooyee samay xuur doom ji ne wërit daw dem ci yaaja fekk yaaja xam na bukki doomu bukki yaayu mu ñëw di oo di xam na bu yàgg yaaja ba mu xippee bët yi ci nelaw la yeewu xool gis doomu doomam ja di nàmp xuur gaynde ci la xamee bukki bu yebee gaynde <laughs> fekk gaynde di nelaw de wala bu yebee gaynde rek nday ji du ko yëpp bàyyi ji du ko yëpp xanaa doom yi man de noonu laa mel ak gone yi toog ne nii rek njaax ñu ñëw di xoo di mel ni kay dañuy fooyee samay xuur may may ree na <laughs> la Pate Ndiaye bu ñëw ubbi compte Instagram fekk baayam nga xam ni yabuma mu ñëw di foo may kii muy waaye waaye doolu waaye ko kii xamuma de na ma dem laaj baayam ma laajoon baayam wala ndeyam bul fekk kii di live nga fay dugg bul fa wax génnal ci moom àdduna ak alaaxira boo bëggee léegi wax la nan lañ la juree yow lii day wax ci doomu xaraam yi kan moo xamoon ne Antoine Diome baayam daa biiral yaayam moo laa ko wax di ci la ko ñëpp xamee moo ko jox tur boobu Antoine ñàkk Diome hmm? kan moo xamoon ni nijaay Antoine Diome mooy góor jigéen bu gënoon mag ci góor jigéen yi ci Afrique te moom moo ko nàmpal jox ko mu lekk mu naan ku ko xam <laughs> kan moo xam ah maire ñaa <laughs> kuy wax kuy wax euh, opération rëbb dëm ba génne ndayu Antoine ak fu ko baajee biirale maa ngi ñoo dem sama yoon man <laughs> Antoine daf maa ragal nag te moom xam rek temps il faut ma may ko dara gars yi pëggee noonu ma laa jàppaleel Antoine yow da nga sonal dafa mën a duul nag moo tax ma sonal ko mais sinon man du ma kii Antoine dafa mën a fen dafa mën a fen Antoine day fen rek di Ismaïla Madior moom dafa ak bëri muy xëpp xëpp moom day duul di xëpp clignotant moom mooy Ismaïla Madior clignotant bu buy fen ni la def bëri paa boobu du fu ñàkk jom di duul naan nii bëri clignotant ki <laughs> yàgg mais ñooñu maa ngi ñëw sama live ubbeeku na Facebook bi ubbeeku na léegi retour bi bii mooy dernier live bi fii en attendant dañuy dellu Facebook ah kon gaa yi dama leen doon jaaree di leen ziar di leen nuyu di leen sant di leen di leen wax nii ay jàmbaar ngeen wéttali ngeen ma bu ñu ma tëjee Facebook vraiment yéen laa nekkaloon ngeen may suivre kontaan naa ci yéen li ngeen def rafet na bu ñu ma bloqué waatee rek ma ñëw bu ñu ma bloqué waatee mais xam nga yëfu baadoo la yooyu ngeen baal ma nag yooyu yëfu baadoo la de ñu tëj ma fële ma ñëw nekk ak yéen ngeen commencé am sympathie bi di bëgganteeg man waaw yéen a ma bëgg. wala ma leen bëgg ay bëggante la waaye comme ubbi nañ ma Facebook maa ngi delluwaat waaw fas yéene nag toj seen nangam taanu nday yi ñoom ñëpp ñoom ñaar <laughs> ñoom politiciens yi waaw voilà Ismaïla major ki la ñu temps waa kële nga Antoine Café Touba <laughs> Antoine Café Touba <laughs> ak ak ak ak biiru Sall tey rek ma tey rek laay toj tey rek laay namp seen xuuru nday yi maa ngi ñëw acca sama gaay kon nañ daje facebook mo Morgun Mollah Morgun facebook jëm mo daje téeméeri yàmb ci jaay raja waaw portable bi nag benn histoire rek laa ci wax Antoine génn dem ba assemblée nationale di tonton teg man ay waay bu ma waxee la fa nekk ci biir ay waay dëkk bi maa ngi dem jaaw ñu daje foofu insha allah béggee sama gaay wan loo peace and a mouth yaaw may leen ma tuuti nag maa ngi ci gis nga maa ngi ci toilette bi laa nekk nii ci toilette di laa nekk nii de dama dëgër fit nag live ci biir toilette di nag <laughs> di sànni samay bomb atomique nucléaire bomb bum basoka ci suuf moom duma leen ko woon parce que fu ne suuf moom oh xanaa ma jox leen tànk yi rek tànk yi tànk yi baa ñu ngi tànk yaa ngi ne am na tànk yi jël leen tànk <laughs> ak tubay <laughs> dama féroce de ak tubay tubay yaa ngi jël leen tànk yi jël leen tànk baa ngi ne nekk eh, xale yi laa yóbbu seen kër maam xale yi laa yóbbu seen kër maam kon ñu def noonu ca One Love man ma ma continuer samay concentration parce que xale yi fi ne ñoom laa yóbbu seen kër maam waaw merci beaucoup maa ngi enjoy <laughs> maa sadik maa criminel wan ñëw ci dëkk bu dugg ne leen salaamaaleykum maa ngi nii bett ñëpp conférence de presse toog yëngal bopp bi toj foofu <laughs> menacé <laughs> xoo nekk ci biir taan bi di taxawaalu vum vum xoo nekk fii jël gaal romb <laughs> romb leen ba egg Rosso Mauritanie ñu doog koo jàpp xooaan génn xoola ñuy yuuxu sibilee kii ñëw lu lu tëdd si euh, Antoine ñàkk jom ñëw toog ba assemblée nationale naa on a attrapé waa bip ñoo ko jàpp rek waa dëkk bi di tàccu kàcce kàcce di tàccu deux minutes <laughs> ma leen dañ ngeen dee de <laughs> ki ngeen jàpp doomu gaynde la <laughs> du doomu bukki de doomu gaynde la da nga koy delloo doomu gaynde doo ko lekk doo ko warax doo ko won ne da nga koy delloo ndeyam yii moo tax man leen du fay àgg du fa yàq doomu gaynde ngeen jàpp signeel bu fekkoon doomu signeel la waaw ah, mun na fa yàgg bu fekkoon doomu kuttu mbaasaan la mun na fa yàgg mais kii doomu gaynde la dellool dellool dellool kii kay doomu gaynde ku ko àbb delloo ko moo taxit Macky delloo leen doomu gaynde ga la lendemain waan moo bon walla féroce bàyyi leen sànni leen seen passeport yooyu te ngeen dem wuti passeport international yi billahi tant que yéen a ngi yore seen roussel yooyu seen variol yooyu dinañ leen faray dinañ leen faray de yooyu passeport yooyu man de gën gëj naa cee xool man gëj naa yal na ma yàlla muccal te musal ma ci passeport variole ak rougeole Antoine mu doon duul toog assemblée nationale jàpp nañ waan waa bit moo mu doon bu ndaw bi moo toog di fooye Antoine quoi non Antoine moo Antoine assemblée nationale non man nag man jambar la nak man gaay dañ ma jox cër boy bu ndaw bi nokk fi ba Canada di yëngal assemblée nationale Boy, Antoine ñak jom tok assemblée nationale di ma tontu barki 17 millions de sénégalais man la Antoine ñak jom tontu no vraiment nak boy man war war ngeen ma sumil sap duma nit ma ñew portable bi gis ni dañ doon jema ray Serigne Cheikh salou wax ci Serigne Cheikh salou ak nu Antoine bëggoon def. Antoine ñëw assemblée nationale bu bu ko woon ñëpp ni Serigne Cheikh Saliou sëriñam la gaañinam la waaye loolu pour tontu man ndeysaan Serigne Cheikh Saliou sax doomam euh, mus nañ toog ci euh, euh, tëm di waxtaan moom Serigne Cheikh Saliou doomam mu naan ma Antoine lu tax mënoo wone sa mbëggeel ak nu la Serigne Saliou doon def waaye bu ko moon wax si man sax waaye dinaa wax quoi parce que xam naa ne Mollah Morgun wax naag man bëgg maa jaxase donc foog ma wuyu ko mooy buy wax waxu Café Touba naan Serigne Cheikh Saliou doomam. dañ doon waxtaan mu ne ma Antoine des fois da ngay wane da nga war a di wan wan sénégalais yi ah, ah, fi nga toll Serigne Cheikh Saliou ah, fi nga tolloon Serigne Saliou ba doomu Serigne Cheikh Saliou fekk xoolam man maa leen wax portable ba Serigne ba mu bu ko tontu nag bu ko won ma bu ko won tóoni bu ma ni moo laa man Serigne Cheikh Saliou xam naa ko xam naa doomam ay gaayen lañ yooyu muy doon wax yooyu kenn santu ko ko kenn santu ko ko woon mënoon na ñàkk mais loolu yëpp man la doon tontu 17 millions de Sénégalais man la ñuy tontu yabuñu ma nag. dégg dégg lu ma leen di wax joxoon naa leen exemple boobu nee naa leen billaay man ku ma xamul la ma yàpp ku ma xamul mais sama rëkk rëkk rëng samay rëkk gaa yabu ñu ma dee ay yi ñuy wax ne ay kilifa lañ ku ci gis ku ma ci gis day ku ma ci gis day sotuba yabu ñu ma barke alxuraan seen bàyyi laa boo demee ci ñoom sax ne leen moolaa sama gaañ la dañ lay xoolaate bët ah da nga xam moolaa sérieusement da nga xam moolaa ñu ñu dem ji Antoine ci boppam ki ma xam dem ci moom ne ko moolaa sama booy ñetti yoon Antoine laaj na ko ah boo da nga xam Mollah man daf may saaga rek man Mollah Mollah daf may saaga rek man daf ma ko def da nga xam Mollah ko xulli bët ko sax <laughs> sama grand bi ne ma booy yow eh, traumatisé nga ma ne ko ah mën a billaahi keroog maa ngi wax ma ñetti yoon ah da nga xam Mollah ah <laughs> rek <laughs> bi ne ko ah, man daf may saaga rek lu ne la may wax <laughs> grand bi di ma wax ne booy bàyyil bàyyil Antoine waaye keroog maa ngay wax say wax muy xulli bëri gaañ gëmewu ko sax na ko sama booy ga <laughs> gars dama leen doon rek sonal <laughs> naa ne Antoine toog ba assemblée nationale di ma tontu non man nag ba am naa valeur nag réew mii ponkal laa ci nag billaay wallaay loolu yàllaa ko def réew mii ponkal laa de. xomu ku ñu yàpp me man bokku <laughs> bokku ma ci gisoo dañuy tok ci ay plateau bu ko wax gën mënu ñu wax Mollah gën ñi wiri <laughs> kon Seneweb buñ toge ci plateau yi na gis nañ portable amna na photo buñ gis gis nañ portable amna ku ko genn ah, na est ce que mom la amna de man mi ma fi génne photo portable bi <laughs> mais ñi muñ wax sama wala do mi fees dal ki dul naa liste di xol sama rom nat ah ku fi waxtu rom dere dafa dofte dalay de day wër say juróom-ñaari maam say toj-toju maam lépp fu ñu tojoon daf fay jaar dafa dof de détecteur la détecteur privé la day day loqati say say sila bu nday lay génne say stringu nday say belefete bàyyi lay génne laa la wax di ko fóot ci digg ci digg askan wi moytu leen ko de moo tax bu ñuy wax ñi mu wax moo laa de ku nekk di xool sa morom naa wuy euh, en tout am na ko ko génne daal am na ko ko <laughs> kan moo ko ci génne ku dul man <laughs> rek waaju na ko non kon nañ bàyyi noo nag ma dajee ko ne wuy ayooy wuy wuy wuy man moo laa man xaw ma lan laa nu ma cikkilee nu ma tuuti tuuti man maa man comme tuuti galaxtaan la man fu ne kon melentaan comme melentaan mais nag mattu melentaan laa yow <laughs> man boo duggee ci man sa stringu nday laay loxati laa la wax damay daj ji seen buntu kër seen biir kër dugg ci biir génn sa stringu nday ak sa bele fete baay xoolal indi saabu saabu saabu kii bërngal yii fóot ko ba mu set wecc wecc weer ko ku romb ma ne la kii de sringu ndeyu Antoine la ah waaw kay gis nga nu mu day bele kii de caaya baayam la mi ngi nii <laughs> maa ko doon fóot mu fees del sumb bu ñuul kooku <laughs> moo tax yabuñu ma tey moo tax Antoine toog ba assemblée nationale di tonton teeg man bugg maa ne moo laa man sëñ Cheikh Sall sama sëriñ la doomam sama xarit la hmm, man ku ma yab waaw billaay dama laa sori fu ma yab dama laa sori yenn dof yi naa non moo la yaa ne woon yaa ne woon xuwaan eh, eh, dugg na bato man man kay ne benn waaye wax na ma ko tey benn soxna ma ne ko waa léegi man moo laa samay wax ay duuli muus la waaw dama leen woon xuwaan du fa taxaw du fa yàgg du fa yàq am na wala amul non da ne woon dugg na ci bato ma ne yéen a duul dama ne probablement normalement xuwaan ci heure bi war na ko fekk ci bato yéen bu may wax loolu kenn xamul ne xuwaan ci ndox mi la jaar <laughs> kon kay man léegi nan laa defa xam ni xuwaan ci ndox mi la jaar bu may def live kenn xamul football ma ne leen Juan romb na frontière Sénégal rëcc na Sénégal Juan normalement probablement si tout ça passe bien nii laa ko waxee probablement normalement si tout ça passe bien Juan mu ngi ci bato bi te oto bi mi ko doon xaar Rosso Mauritanie man bu ma xam loolu kan moo ko fi xam <laughs> kan Sénégal moo xamoon ni Juan rëcc na frontière Sénégal man bu may wax loolu kan moo ko fi xamoon boobu wax naa ko man ne Juan rëcc na frontière Sénégal Sénégal jàppatuñ ko. Rosso Mauritanie am oto bu ko fay xaar mu waroon dem mooy mooy euh, Mercedes yooyu Mercedes yàgg ya moo ko fa waroon xaar mu yóbbu ko ba euh, Rosso kii yi lu mu tudd si Nouakchott Nouadhibou Nouadhibou fa la ko bateau bi doon xaar foofu la waroon dem loolu yëpp ñun ñoo ko planifié noonu nu ma ko xamee nu ma ko xamee <laughs> loolu da wax ne leen probablement barke alxuraan moo tax gel bu ma bu ma bëggoon weddi ma ne ko demal léegi live bi boo fa fekkul probablement normalement si tout se passe bien boo ko fekkul ñëwal ma jox loo 1000 dollars 1000 dollars sénégalais yi seede mu dem loqati dem déglu yëpp ñëw ne ma wuy wax nga dëgg kay probablement wax nga ko kay dégg naa probablement dégg naa si tout se passe bien man leen man sa waay man caaxaanuma info bu ma la jox yóbbul bu ma la jox demal nga werante ko assemblée nationale barke alxuraan doomu aadama du ko dindi

voilà si mu ñëwee Sénégal Sénégal si mu daj xam il est incontournable dans ce combat incontournable moo mu ñëw man contacté contacté pour des compléments de dossier ci mu ma sama Instagram lama contacté ma numéro may wax ak WhatsApp ay best lañ best best <laughs> am benn doomu ponkal bu ci réew autorité bu ko dem France mu tiit parce que Juan comme daf leen yóbbu ces pays booy bi bëgg a dem France quoi ñemewul ragal ñu jàpp ko foofu rek benn copain am woo ma ko moo la dama bëgg sama copain bi bëgg a dem France quoi mi ngi euh, kii passeport diplomatique mais dafa ragal quoi Juan indil ko problème quoi xam nga mais jàppale ko gaañ nga ne ko Juan boolewu ko ci affaire yi ma ne ko ah jàppale ko parce que bëgg na dem mais ñemewul quoi day ragal ñu jàpp ko foofu noonu quoi cour pénal international rek ma reetaan ma ne ah, waa garaaw dinaa ko wax loolu yónni ma numéro ma ne ko xwaan boolewu ko ci ci plainte bi <laughs> may bandi de vrai bandi laa man maa xasaw ak laa kuy wër bandi sërwu nag ma jàpp <laughs> dama xaje dama xaje dama xaje yu ko xaj rek laay dama xaje dama mun yëfu bandi dama ca dama ca yàgg nag dama ca yàgg de damay suruxal dama lay suruxal comme bukki dama lay gasal pax rek bëma këŋ nga waaw <laughs> naa saa sama jikko ji nu ma bonee nu ma <laughs> dama sama xel bu sadik laa yor xel bu sadik bëm moo tax laa koy tëjee man ku ma yàpp rek dama laa sori mais <laughs> moo ñàppee sa maam boo ma yabee sa dama laaj ma sa baay billaay wala nga laaj ma sa yaay ne maman mu ne wala nga papa man ne moo laa laay fekk ci Instagram muy def live ma koy yab danaa li ay waay yow yow yow yow ñoo yab yow xanaa da nga bëgg moo laa génn sa nan laa doxaanee nan laa doxaanee sa sa yaay xanaa da nga bëgg moo laa wax la su suñu premier jour de rapport sexuel bu ma def ak sa yaay ba jur la yii bul dugal ci problème génnal ci kooku génnal ci kooku dafa dem day dugg ci day dugg ba sa sa sa rondalu génn léegi laay léegi da ngaa bëgg moo wax nan laa doxaanee sa ba ba ba da koy génne de dara ump ko mun na ko loqati ba génn ko ban koñ laa biiralee sa yaay ba jur boo <laughs> tax booy bu ma yab rek na ma laaj baayam wala laaj ma yaayam. te léegi bàyyam danaan ko génneel ci kooku raxasul ba set wecc léegi mu wax la sa nan laa tëddee sa ndey ak moo tax ma def tekk ma ne ko ne ma yàpp moo tax ma joxoon ma joxoon leen boobu noonu mooy ban gaynde bu mu tëddee ne di nalaw quoi doomu bukki yor ba rek comme di fooyee ci xuuru gaynde <laughs> di nàmp xuuru gaynde il fekk euh, bukki yaay ji da doon gaynde tëddee nee di nelaw doom ji di yor di yor ba ñëw ci xuuru gaynde gaynde tëdd njaax muy fooye xuur yi di nàmp xuur yi hi mais yaayu bukki dafa yeewu rek doom ji dafa yeewu xool ne wuy sama ndeyooy yaay yow kii rek kërëb xëm <laughs> xëm gaynde ne bëri yeewu xool doomu bukki <laughs> yow yaa ma ñi def lii de yow sa ndey boo ko tàggoon doo ñëw di fooyee samay xuur <laughs> yow sa ndey boo ko tàggoon doo xooyee doo fooyee samay xuur doom ji ne wërit daw dem ci yaay fekk yaay xam na bukki doomu bukki yaayu bukki mu ñëw di oo xam na bu yàgg yaay ja mu xittee bët yi ci nalaw la yeewu xool gis doomu doomam ja di nàmp xuur gaynde ci la bukki bu yebee gaynde da <laughs> fekk gaynde di nalaw de wala bu yebee gaynde rek ndey ji du ko yeb bàyyi ji du ko yeb xanaa doom yi man de noonu laa mel ak gone yi toog nii rek njaax ñu ñëw di xoo di mel ni kay dañuy fooyee samay xuur may may ree na <laughs> la Pate Ndiaye bu ñëw ubbi compte Instagram fekk baayam nga xam ni yabuma mu ñëw di foo fekk may kii muy non ah, eh, waaye waaye doolu waaye <laughs> d'accord kii xamuma de na ma dem laaj baayam ma laajoon baayam wala ndeyam bul fekk kii di laaj nga fay dugg bul fa wax génnal ci moom àdduna ak alaaxira boo bëggee léegi mu wax la nan lañ la juree yow yii day wax ci doomu xaraam yi kan moo xamoon ni Antoine Diome baayam daa biiral yaayam moo laa ko wax di ci la ko ñëpp moo ko jox tur boobu Antoine ñàkk Diome hmm? kan moo xamoon ni nijaay Antoine Diome mooy bu góor jigéen bu gënoon mag ci góor jigéen yi ci Afrique te moom moo ko nàmpal jox ko mu lekk mu naan ku ko xam <laughs> dool kan moo xam hmm? ah mère ñaa <laughs> kuy wax kuy wax euh, opération rëbb dëm ba génne ndayu Antoine ak fu ko bàyyee biirale maa ngi ñoo dem sama yoon man <laughs> Antoine daf maa ragal nag te moom xam rek temps il faut ma may ko dara gars yi pëggee noonu ma laa jàppaleel Antoine yow da nga sonal dafa mën a duul nag moo tax ma sonal ko mais dafa mën a fen dafa mën a fen Antoine day fen rek fen Ismaïla moom dafa ak bëdi muy xipp xipp moom day duul di xepp clignotant moom mooy ismaila ma yor clignotant buy buy fen ni la def bëdi pa boobu du fu ñàkk jom du du lan ni bëdi clignotant ki ka ko mo na fen mais ñoon ma ngi ñew sama live ko na facebook bi ko na léegi retour bi bi moy dernier live bi fi en attendant dañuy dal facebook ah kon gaay dama leen doon rek di leen ziar di leen nuyu di leen sant de magal di leen wax ni ay jambar ngeen wéttali ngeen ma bu ma tëjee facebook vraiment yeen la nekkaloon ngeen may suivre kontaan naa ci yéen li ngeen def rafet na buñ ma bloqué waatee rek ma ñëw buñ ma bloqué waatee mais xam nga yëfu baadoo la yooyu ngeen baal ma yooyu yëfu baadoo la de ñu tëj ma fële ma ñëw nekk ak yéen commencé am sympathie bi di bëgganteeg man yéen a ma bëgg wala maa leen bëgg ay bëggante la waaye comme bi nañ ma Facebook maa ngi delluwaat waaw fas yéene nag toj seen nangam taanu ñoom ñëpp ñoom ñaar ñoom politiciens waaw voilà Ismaïla Madior kii la ñu temps waa kële nga Antoine Café Touba. <laughs> Antoine Café Touba ak ak ak ak Macky biiru Sall tey rek ma tey rek laay toj tey rek laay namp seen xuuru ngi de acca sama gak, kon nañ Facebook Mollah Morgun mur Morgun Facebook toro jëm mola aja, temen yang ci jaay raja waaw portable bi nag benn histoire rek laa ci wax Antoine génn dem ba assemblée nationale di tonton teg man ay waay bu ma waxee la fa nekk ci biir ay dëkk bi maa ngi dem jaaw ñu foofu incha allah béggee béggee sama gars yi one peace and I'm out yaaw may leen ma tuuti nag maa ngi ci gis nga maa ngi ci toilette bi laa nekk nii ci toilette di laa nekk nii de dama dëgër fit nag live ci biir toilette di nag <laughs> di sànni samay bomb atomique nucléaire bomb bum basoka ci suuf moom dama leen ko woon parce que fu ne ci suuf moom oh. xanaa ma jox leen tànk yi rek tànk yi tànk yi baa ñu ngi tànk yaa ngi ne am na tànk yi jël leen tànk yi <laughs> ak tubay yi <laughs> dama féroce de ak tubay tubay yaa ngi jël leen tànk yi jël leen tànk yi baa <laughs> ngi nii de nekk nii eh, xale yi laa yóbbu seen kër maam xale yi laa yóbbu seen kër maam kon ñu def noonu ca One man ma con ma continuer samay concentration parce que xale yi fi ne ñoom laa yóbbu seen kër maam waaw merci beaucoup maa ngi enjoy maa sadik maa criminel waan ñëw ci dëkk bu dugg ne leen salaamaaleykum maa ngi nii bett ñëpp conférence de presse toog yëngal bopp bi toj foofu menacé <laughs> xawaa nekk ci biir temps bi di taxawaalu vum vum xawaa nekk fii jël gaal romb <laughs> romb leen ba egg Rosso Mauritanie ñu doog koo jàpp xawaan génn xoola ñuy yuuxu sibilee kii ñëw lu lu euh, Antoine ñàkk jom ñëw toog ba assemblée nationale naan on a attrapé xawaan waa bip ñoo ko jàpp rek waa dëkk bi di tàccu kàcce kàcce kàcce di tàccu deux minutes <laughs> ma ne leen dee de ki ngeen jàpp doomu gaynde la <laughs> du doomu bukki de doomu gaynde la da delloo doomu gaynde doo ko lekk doo ko warax doo ko won ne da nga koy delloo ndeyam yii moo tax ma leen du fa yàgg fa yàq doomu gaynde ngeen jàpp signeel bu fekkoon doomu signeel la waaw ah, mun na fa yàgg bu fekkoon doomu kuttu mbaasaan la mun na fa yàgg mais kii doomu gaynde la dellool dellool dellool kii kay doomu gaynde ku ko àbb delloo ko moo taxit Macky delloo leen doomu gaynde ga la lendemain Juan moo bon Juan la féroce bàyyi leen sànni leen seen passeport yooyu te ngeen dem wuti passeport international yi billahi tant que yéen a ngi yore seen ruusal yooyu seen variole yooyu dinañ leen faray dinañ leen faray de yooyu passeport yooyu wuu man de gën gëj naa cee xool man gëj naa yàlla na ma yàlla muccal te musal ma ci passeport variole ak rougeole